waaye bala boo waay du sport yow yow benn baal ma wax ndeke yow yaa am dëgg. yow baal ma de maa ngi jégalu non maa ngi jégalu maa ngi jégalu parce que li mu doon wax yëpp ak li mu wax si yow la ko déglu. laissez-moi terminer. comme je dis. non loolu la ko benn wax mu weddi. da ngay noppi nag waaw huile huile mu ne doo café la non man da nga ma jox defar fu mu nekk quand je dis quand je dis par exemple affaire de infidélité déglu leen ma bu baax. oui Sophia mu ne loolu dul café su ma la nee affaire de infidélité. waaw loolu café bu wéeru loolu la fay. affaire bi affaire bi Sophia yaa ko ne sa jëkkër ak lay seetaan foog mu defar ko. foog mu defar ko. muy wax jëkkëram am na lu mu wax ñu waxante xaar leen xaar leen bi laay loolu la fee di leen ma mayoon da ngeen di xaar damaa ne su ma ne affaire de infidélité moi personnellement maya du ma ko xamul tax du ma ko café du ma ci mm. foo sama kër du ma ci foon teg sama ay jëkkër ak sama ay xaritu jëkkër ah. xam nga lu tax xam nga lu tax bokkul ak réalité dama ne non non du ma ko foowee du ma ko foowee sax yaa bu ma def comme je dis du ma ko foowee ba pare nga ne nit ñi neen muñ concentré seen doom yi doo ko café yow mais mais mais mu jàmm boole ba pare moom non Mia da nga daan. mais da ngeen daan waaw ba pare mu ne su nit infidélité nga dem diwu ji nga tontoo xale yow sa jëkkër su infidélité nga diwu ji nga léttu lu bees nga toog nga seet ngeen ma bàyyi man ma yaa non mais baal ma man moom maa la tooñ baal baax non baal naa baal nga leen ak mais teew li may wax dama koy wax nañ ko dégluwaat c'est-à-dire tamit suy wax nañ ko dégluwaat kon ñu teg wax ba pare silence gars euh, vous allez enlever tout le monde vous allez enlever tout le monde enfin nangu na laissez-moi Ahmed Cissé s'il te plaît su ma nee par exemple infidélité man duma ko café waaw personnellement mooy mhm. peut-être man ma yaa dama man ma yaa dama fiir mhm. euh, man je me dis tout le temps sama xaritu jëkkër yi xam nga lan laa leen di wax su ma leen invité sama kër te toggal sama ceeb bu neex taalal leen ventiloo wala clim mu leen ëpp toog sama ay fauteuil man mayaa mu neex boo ko ñaareel duñ ko fi wax parce que en fait par respect pour moi loolu c'est un loolu principe la ci man loolu principe la ci man duma ko café duma ko reetaanee mais ah, xam ah. fan laa wax jigéen yi nga xam ni mhm. yàlla nattu na leen parce que man je me dis que nattu la yàlla nattu na leen seen jëkkër yi par exemple mhm. génn dem di doxaan loolu divorce par exemple. nit mën nga mën nga bañ dara Matar. am na reetaan bi am na reetaan bi ñuy teg seen kese bañ leen ma yéen bañ leen ma. Matar nit mën nga bañ dara. mën nga bañ dara mu jot la. dara tànn ngeen na. non waa jooju reetaan si internet bi naka lay reetaan si ah. boobu dina wax ko. soo ko reetaanee ba pare mooy ki nekk gana gana gana. eh eh aujourd'hui c'est <laughs> en plus Benoît li muy def nii koo ko defoon tey jii. non ñàngal. non non parce que non non non kaay kaay kaay. waxtaan Benoît yow laa la wax nit suy wax. te waxu leen bàyyi leen ko mu wax ba daaneel. ah man de non non non pas Cheikh non pas normal ah non mais man daf ma tooñ parce que dama ko supporté ba fin bi. mu nangul leen yéen ñaar. teel a nangu dañoo bëri duma. moom cinq minutes am sa jeex na. mais dafa daanu daane ma ma. mais musul waxaat moom dina daane. man xamewuma la seen. non man jëlee naa ko suma problème je m'excuse. d' accord je disais que une personne. nit mën nga par exemple nga ni man kat. Eh, booy wax man kat man kat man kat bëgguma no xaaral sa fiyaa man duma àddu àdduna jaralu ma may wax lu dul dëgg ci man. Mm. parce que man dama nekk nit koo xam damay damay damay yaatal damay meruma parce que juste que. Ahmed Cissé et Benoît sont en train de perturber la séance. Ah, et euh, on ne se on s'en excuse mais yow yaa perturbé bébé. te c'est pourquoi man daa ànd ak yow suba ba léegi ñu ànd àndi nawle mais nga dem ba ci biir yow sa idée nga contre sa bopp sa ah, idée yow nga ne sa ñun ñun loolu lañ jàpp non mais sérieusement ba léegi nag yéen a koy dox terminé man foo ko jégal la franchement conclure bàyyi leen nag lan lay conclure kii kii dama koy perturbé ba kii dama koy perturbé ba dimanche. wala kii lan lay conclure léegi soo ko waxee lu mel. ñaari wax ji du yegg dimanche nga ko yeggalee. mais bii yaa ko ne waxal lan lay wax. su mu nekk de lan la war a wax. yaa mooy complet bàyyi seet yow seet. ñaar ma sa benn non mais lan lay wax. li may wax li may wax jour boo noppee da nga koy dégg. parce que en fait quand tu parles les gens t'écoutent aussi même si ñu d'accord. on t'écoute ce qui fait que man je me dis que Maya mën naa ni par exemple bëgguma ko ma mbéj. bëgguma ko de. bëgguma ko ma mbéj mais jour bu ñu ma mbéjee par exemple dinaa ko muñ. sañ naa loolu ma waaw mm-hmm. dëgg la mm-hmm. tey jii am na jigéen boo xam ne nee na man bëgguma infidélité mm-hmm. su ma sañoon sama jëkkër du doxaan su ma sañoon tey sama jëkkër du xool keneen su ma sañoon tey sama jëkkër dañ koy lim jikko yu baax yi mais est-ce que est-ce que loolu jigéen yëpp la loolu jigéen yëpp nga bëgg dans la pratique est-ce que ngay dajal parfois nga dajal ci góor yoo xam ne en fait il tire tout sa kii bouge c'est pas parce que yow matle woo wala mënoo sa bor wala lenn mais ñoom noonu la mel suñu amoon quatrième femme dañuy dem uti ji cinquième wala anyway c'est-à-dire que kooku nga nekk ci sëy bi sa jëkkër nga xam ne par exemple kii nii la ko yàlla nattoo accepté ko ban ngay def da ngay tas sa sëy non non su dee man mayaa dama naan la ci yenn circonstances yi nga xam ne waxoon naa ko yi nga xam ne m mm. non du ma tas sama sëy xam nga vraiment eh, eh. xam nga du ma tas sama sëy. dëkk bi xam nga du ma tas sama sëy xam nga du ma tas sama sëy parce que j'ai pas envie j'ai pas envie d'avoir plusieurs maris dans ma vie j'ai pas envie à ce que doom yu bari yoo xam ne bokkuñu papa man loolu sama choix la j'ai pas envie par exemple di xam beneen góor du sama jëkkër euh, aussi aussi aussi aussi méchant soit-il aussi nan laa koy tuddee daf daf ma yenn loo xam ne comme par exemple infidélité hmm. dem na doxaan keneen mais est man bu dee man yàlla may na ma xolu muñ loolu a xool sama a xool sama ay ah. ji tey ji ba mbëkk miir su ñëwaatee ma je te promets dama lay xëccaat nga ba pare ma xam nu yaa am naa droit wax ne man je pense à comme mata ni mu xalaate leneen yow ni nga xalaate leneen en plus kay tey jii nit su fi amee benn ba ñaari doom ngay hmm. sëy ñun jigéen dañu am benn sensibilité tey jii mën naa sëy benn Benoît yàlla ñu déet ñu am ñaari bant wala ñetti bant ma xëy suba amet euh, mi takk ma mais amet man la bëgg bëggul sama ay doom am na xale yoo xam ne nga ciy xalaat am na xale yoo xam ne yàlla rek moo xam am na xale yoo xam ne tey jii loolu yàlla non du divorce mais écoute on va parler du divorce parce que tout à l'heure on a introduit quoi comme quoi sa jëkkër suy pour les femmes. am na jigéen bu sëy benn yoon. am fa ñetti bant. mu dem seet. am fa ñaari bant lépp si sëy la yàlla dafa daganal. d'accord naa mu demaat seet ñeenti yoon. am fa bant yow pour en tant que femme. nga ne man am fii doom am. man c' est non non non c'est un choix là là c'est quelque chose de de de non non c'est un choix. man maa choix ki mu daal ki mu daal su sama doom yëpp ñooy bokk baay. yàlla ko sama doom yëpp doom bi nga xam ne. sama doom dama bëgg seen papa bi mu yaral leen parce que papa parfois yërmande bi muy am ci doom waxuma keneen du am yërmande lool de gis nañu fi ku jël doom jiit Euh, traité ko mieux que son enfant bari na Sénégal mais am na si am na si ñoo xam euh, ne autre personne et moi j'ai pas envie de voir mm. mes enfants di traumatisme à cause de sama ay propres décisions mm. ce qui fait que man personnellement li ma wax ni je peux prendre mon bonheur kaay man mën naa man mën naa jël sama bonheur kaay man mën naa jël sama bonheur man personnellement maya mm-hmm. sacrifier ko pour say bonheur sama ay bonheuru doom jërëjëf ah, mais si t'es pas heureuse construit chez mën na nekk mais bu doom yi màggee su doom yi màggee fay les enfants yow yaay miroir say doom li nekk si yow rek la yéen sur la base d'amour que je porte pour mes enfants j'ai pas envie ah, de les traumatiser ah, Mata s'il vous plaît quelques secondes ñu dem parce que ñu ngi may teg pression derrière que émission bi jeex na parce que nañ ko continuer dimanche on aura largement le temps ak même même même invité yi même équipe incha allah parce que yaa li may li may tàggatoo mooy yaa il faut mu ñëwaat thème bi am na solo. bu ñu fàtte ne. dafa bari ay conséquences yoo xam ne xajul ci benn. gataay mm. mm. ndax suñu waxee fidélité tey den ko xaaj ne góor kese. Mm. am na bu jigéen. su amee bu góor am bu jigéen ban conséquence la am. ci société bi ci diine ji. Mm-hmm. ci njaboot gi ëllëg. mais ak ci xaste ndax sénégalais du jéggal. mu ngoog. da ngay rey sax dem ñu ne nii nga mën a mel sa ndey nangam. waaw ñetti jëkkër la moo société bi ñu nekk dañu gëm ne nu yaay mel mooy feeñ ci doom aqu waxate ba suma mbokki géwél yi naan ku ñulug sa doom jëkkër ñàkk sa doom ñàkk sa doom et ça c' est pas vrai foofu rek laa andi ça existe pas ah. doom ndey mm. sa ndey ku bon sa ndey ta ma ci oui donc euh, fidélité infidélité mm. moom ñett lay àndal adultery ak fornication mm-hmm. ñaar yi foog ñu fekk si ko mm-hmm. mais nit lépp loo xam ne rek gëm yàlla génn na fa chaque jour nga am raison yu tax nga war a infidèle. dëgg am na ko infidèle koo xam ne tey tayut ko. Mm-hmm. mbëggeel moo ko jàpp. Mm-hmm. xam nga tey ma dem toll ci am jabar. Mm-hmm. jox